nooteel gi ci fonction publique bi ak ay njaatige yi wégul seen i liggéeykat loolee nag ëlëm na xelu yi gi di bés bi le jour ma ngi ci daal di sàkk aw xët wu yaatu lool féetale kopp gëstu ak ay firnde yu leer yi ni gi ne dem na ci ñeenti weer bari na ñuy liggéey ci fonction publique bi am fa ay contrat mënuñoo jot seeni i payoor rax ci dolli tamit càmbar ga ñu doon na amal ci wàllu ko liggéeykat yo kii mooy sababu lu bari ci wàllum xëy daal di fay naax say ak ñi nga xamante ne dañ leen fa daal di tàkkale seen tobarte sànni leen ci mbedd mi dooni borom kër ci administration bi ci wàllu ko contractuel ak lépp luy may xel wàllu ko syndicat gën a yokk ci xar mi karaw ne bëtam moo ko may ci lu kenn mënul dindi ay liggéeykat yu fa nekk fukki at juróom-ñett di fa tuur seenaw ñaq ba war a dëgmal seen wàllu ko à la traite yeesal seen contrat CDD mu doon ab intersyndical buy xatraay ak tënku ci CSA UNSAS di naqarlu loolee rax ci dolli tamit ña naan lii yëpp nag nekk na ay musiba yu tegee jëmale ci kilifa yi keneen ku lëmbe ettu yéenikaay moo di docteur Cheikh Dieng ma ñu daaxee woon ci kër gële di ONAS di wuy si ci lépp lu jëm ci wàllu ko cet ak cëlal docteur Cheikh Dieng nag yebeeku na ci kaw gouvernement bi ginnaaw ak tekk tekkaar lam gu yàgg daal nay génn ci loolee xam leen nag li sabab ak daxam du lenn lu dul dëggoom ak ñàkk tënku ci santaanep kenn bokk na ci tamit ay njuj njaaji ki tàppale yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu ko marché yi ñu doon joxalante ci ONAS Cheikh Tidiane ji nag la daal amee woon yéene xeex lépp loo xamante ni dafa daal di jëm ci wàllu ko mbuxum ca kër googile sàkku na tamit ci ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko premier ministre mu daal amal ab audit ci nu mu gën a gaawee ci bépp marché boo xamante ni mi ngi koy daal di joxlante docteur Cheikh Dieng ne moom mënutoon def li nga xamante ni moom moo di ab liggéeyam ngir ci kaw jawriñ ji mu daal di topp daal dugal loxoom ba mu jeex ci kër gi lee di ONAS ci l'observateur la ko fekkaat moom docteur Cheikh Dieng yéen kay groupe Futur Média bi ne daal dinay ferec jëwriñ ji ko jaboote doon ministre Cheikh jaan Dièye dem na sax ba xamle ni ana mu ko seet ko ndox mi ca diwaanu ko Touba Mbàkke foofee moom la fa am ci ak lubal nopp bu ko dégg loxo dem gémmiñ te du yóbbaale tipp proposition de loi bi jëm rek ci yeesalaat tëralin gi ci pencum ndawi réew ma yi ni kaay gi ni député yu bennoo nag ànd nañu ak mbetteel ngir nañu noppee taxaw temm ba ñu mën a tas ak sayal lii di pencum ndawi réew ma mi ngi daal di tegtaloo ci Abdou Mbow ak ay kàddoom yu mu daal di jottali ne nañu tas assemblée bi Seydou Diouf ni moom si gina bu baax a baax ndax nag pencum ndawi réew mi lay doon quatorzième législature bi sagal na ko ca taxawaayam la quotidien yi ni ci ëttu taskaayu yi la namm xalimam jëmale ak a a suqali këru tasukaayu xibaar yi coow lii laxasu ci koppar yi ñu leen féetale woon at yii weesu jawdin yi nag siiwal na li mupp at tasukaayu xibaar yi nga xamante doon nañ jot ay koppar yi ni kaay gi Le Quotidien am luubal bu dem ci benn milliard ak genn wàll moo am jamono ji Sénégal nag awagul yoonu bàyyi tirailleurs yu 1944 seen di fay baa ñu fàtt leen ni waxi daaw ak kuréel gu ñu daal di tekk ngir rek daal di màggal loole jëm ci juróom-ñett fukkeelu taxawaayam ak taxawalu ko kuréel gi waral a sàllalu lii doon bis bu ñu ko jàpp tamit ci armonat bi dina dem ci benn fan ci weeru ci réew mi gaynde sat judd jàppale ne bis ni ki tey Sénégal dal nay sànni ab satelitam bu yees ca Californie la dal di amee Maxam Kayre moo ko daal di xamle lu ne mel ni ki démb la am Sénégal nag ab satelitam boobe ba mu koy sànni mi ngi ci fegge woon nag téeméer ak fukk ak juróom benn yeneen xeeti satelit waaye nag yu ndaw ndawaan la doon ngalamal bu baax a baax réewum Sénégal ci taxawaay bu ni mel ak ràññeekuk doomam gi ni doon Maxem Kayre ñi téere ji ci wàllug tàggat yaram ak stade yi ni kay mercato bi yi ni kay gi ne lay Dia leer na ma nga jëm ci Lazio de Rome ci coupe bi moom jàppale ne Tëngéej FC ak Jaraaf ku ci nekk da nga jot fukki junni ci kopparuk dollar lay doon ku ci nekk doon lu waa CAF sedd seeni club ci wàllum jeu de championnat d'Afrique ci kàddu yi Seydou Bakary Djimera moo jot médaille yëpp xaalis bi Serigne Cheikh Ndiaye nag Serigne lasraar bu yàlla baaxal la yàlla may na ko lool ci wàllu seet bu leen yàlla boolee ba mu seetal la incha allah ba ngeen jëflante doo ko réccu te nit kat faaw nga liggéey ak moom il faut nga seet ay mbiram te moom nag seet yàlla may na ko ci lool waaye wàllu boole tamit yàlla may na ko ci ñu koy wax noob képp koo xamante ni da nga am koy bëgganteeg sëriñ bi nag fowul folowut bu fekkee jokkoo ngeen dina la ko noobal ba ngeen gën a dëppoo ci xalaat lool ndax nit nag dafa war a aar boppam ndomba bii ngeen di gis baax na lool képp ku mu jëflanteeg ba jox la ko di nga xam ne ndomba gi baax na lool wàllu càngat tamit yàlla may na ko ci am na saafara boo xam ne bu leen yàlla boolee ba mu jox la ko nga sangoo ko di nga gis yokkute ci yow waaye tamit wàllu kayit yàlla may na ko ci lool rawatina ñi bëgg tukki muy wàllu passeport yàlla may na ko ci lool moom Serigne Cheikh Ndiaye waaye feebar yi sonal askan wi tamit yàlla may na ko ci xam bokk na ci hémorroïde ndoxum siti feebar yi nga xam ne dafa làmbook askan wi rawatina bi ñuy wax néew kattan ci ñi ma ko sañ a wax néew kattan googe yàlla may na ko ci lool waaye tamit sëriñ bi am na saafara boo xam ne day maye xaalis képp koo xamante ni sangoo nga ko cangat boobee di nga gis ci wàllu xaalis ne yow mi ubbeeku nga sëriñ bi nag pour nga jokkoo ak moom ni ngay def lu yomb la numéro yii ma leen di jox ngeen ko mën a jotee muy 78 475 27 82 numéro yooyu yépp boo ko woowee moo xam whatsapp la wala appel normal di nga ko jot muy Serigne Cheikh Ndiaye képp ku jokkoo ak moom yàlla na sa aajo faju